coalition Yewwi Askan bi bu ñu fàttalee ñoom li nekk seen problème moom mooy seen majoritaire yi dafa am une jeune fille bu ñu fa dugaloon boo xam ne dafa am vingt cinq ans mhm. te vingt cinq ans yi moom mu ngi ko war a matal après les élections alors que avant les élections nga war a matal les vingt cinq ans donc mhm. moom bu ñu jëloon au courant de l'année dina am vingt cinq ans yi mhm. mais après les élections la koy doog am parce que jour bi dafay compter mois bi mais bi kooku nekkee ku éligible ñoom dañu jël kenn ku nekk ci suppléant yi indi ko pour remplacer ko. Mhm. bi ñu jëlee ku nekk ci suppléants yi ñu leen ku nekk ci benn liste. amul la possibilité déjà de remplacer keneen donc ñoom kooku ci place suppléant bi lay delluwaat fa lay resté mhm. mais place ndaw si nga xam ne dafa inéligible place ndaw soosu dafa nekk place bu vide mhm. donc ñoom ñu jàpp ni en moment la li code électorale bi wax mooy ñoom dañoo am place vide. Mhm. donc place vide boobu moo tax ñoom seen liste dañ koy tuddee liste incomplète. donc mhm. loolu moo tax ñu jàpp ni liste majoritaire Yewwi Askan bi dafa nekk liste incomplète donc irrecevable. Mhm. léegi bu fekkee ni teg nañ fay noonu pour rappeler ñi nga xam ñoo ñuy seetaan ñu comprendre un peu ce qui se passe. beneen bi nga xam ni man balaa may commander ñaar yooyu moom laay njëkk a noté. moom mooy bu ñu fàtte ni waaye yeewee askan bi ak waa coalition gëm sa bopp c'était mm-hmm. pas seulement loolu lañ porté woon envers yeew euh, euh, benn bokk yaakaar mm-hmm. am na beneen troisième élément troisième élément bi mooy dépassement du nombre de parrains mm-hmm. dépassement du nombre de parrains bi qu'est-ce qui s'est passé waa DGE ñoom ci notification bi ñu def ci dépo waa Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñoom bien que ni waa Benno Bokk Yaakaar wane nañu ni ñoom dañoo dépassé ci seen ci seen i feuille mais waa DGE bi ñu leen di bindal ñoom dañ leen bindal ni dañoo matal. matal nombre mhm. waa naka la DGE. waa Benno Bokk Yaakaar dugal ba ni ñoom am nañ surplus benn. Mhm. waa DGE notifié la ni leen matal ngeen pile. loolu jar nañu xalaat yi moo tax waa DGE du ñu notifié waa Benno Bokk Yaakaar faute boobu mm-hmm. parce que ñoom jàpp nañu ñoom dañoo matal pile te ñoom seen bopp xam nañu waa Benno Bokk Yaakaar mataluñu te ma ne waa Benno Bokk Yaakaar mataluñu te ñoom xam nañ ko mooy mandataire Benno Bokk Yaakaar moo toog conférence de presse di Aminata Touré mm-hmm. daal ni ñun ñoo ci dolli benn pour mm-hmm. au cas où au cas où au et puis les fichiers ñu ngi sur sur la toile ñëpp mun koo jot xam ne ñoom dépassé nañu benn donc cas boobu noonu su ko waa DGE notifié ce que ça entraîne mooy les listes de Benno Bokk Yaakaar mhm. dañ leen di out sur le plan national donc loolu moo tax nit ñi doon wax bokk donc loolu moo tax waa DGE cas boobu dañ cee dëgg seen tànk mhm. pour bañ koo notifier parce que buñ ko notifier liste Benno Bokk Yaakaar sur le plan national du bokk te loolu moom daanaka élection sans <laughs> Bokk Yaakaar moom alors que suñu defoon juste la loi mhm. même bu fekkee ne dafa dal ci Benno Bokk Yaakaar dañ ko war a appliquer mais appliqué ko léegi mu indi leneen léegi kaw yeewi askan bi est-ce que la fille bi inéligible dafay entraîner liste incomplète je crois que no parce que analyse yi nga xam ne ñoom la ñu dégg ak experts électoraux yi. Mhm. ñoom li ñu wax mooy dame bi nga xam ne moom elle est inéligible. c'est vrai que kee mënu ko remplacer parce que tabb nañ ko fenn ba pare. Mhm. léegi lan moo des mooy dame bi comme elle est dañ koy remplacer ak keneen même à la veille du scrutin bu ñu newoon suba la ñuy voter. Mhm. ba foofu dame bi mën nañ ko remplacer parce que lan dame bi tey. cas de figure inéligibilité la am mais tey ñaanuñu ko yàlla kenn ci candidat yi ñaana lu ñu leen kon exemple la mm-hmm. mais kenn ci candidat yi mënoon naa gaañu mm-hmm. bu kenn ci candidat gaañoo gaañoo d'ici ñu dem élection lan la ñuy wax liste incomplète dañ koy éliminer mhm. donc comme foofu am na possibilité bu kenn génnee dañ koy remplacer donc kii nga xam ne dafa nekk sous menace su inéligibilité mhm. moom dañ ko war a remplacer coow bi jeex coow bi jeex mais mhm. defuñu loolu dañoo continuer ci dynamique bi nga xam ne moom la ñu nekkoon donc loolu nag lan lay indi boo gisee kaaw Benno Bokk Yaakaar bi ñu bàyyi aussi mooy cas bi similaire bi ñu bëggoon a natable ak kaawu Dakar ba tey bokkul parce que kaaw Dakar c'est au moment de vérification lañ détecté ni respecté wuñu parité mais kaaw Benno Bokk Yaakaar ñoom dañoo dem ba ni liste bi c'est recevable ba pare ñu détecté ni am na am na beneen problème bokkuñu cest à ñoom instant bii nii man dama jàpp nii waa DGE dañu waroon dimbali. ci mm-hmm. lépp loo xam ni am na ci ñu wax ñu tel que mm-hmm. situation bi ni mu demee mais dañuy jël yu semblable su ko defee ñi amul le maximum d'information mm-hmm. ñu jaxase seen xel ba du ñu xam dañ naan ah comme def nañ ko ñii dañ ko war a def loolu kon man pour man fii ñu jëm nii nii lii dafay am ay conséquences yoo xam ne ko jur. ci fii ci kanam mais conséquences dina ci ñëw mais man fi ma bëggoon rek. mooy nan lañ ko jàngatee ak man du ma koy résumer. mooy jàpp naa ni lii nii nii. du décision yoo xam ni ay décision yu valable la man sama point de vue. Mm-hmm. lu tax dama lay jox quatre éléments yoo xam moo tax man gëmuma décision yi. élément bu njëkk bi mooy waxoon naa la ko je le répète encore une fois mm-hmm. ministre de l' intérieur nekk Benno Bokk Yaakaar mënul organiser élection yi ba pare di défavoriser Benno Bokk Yaakaar à la faveur de keneen donc le mm-hmm. fait rek ministre de l' bokk ci benn camp dafay tax man crédibilité bi mu waroon accorder scrutin bi du ma ko def bien que ni dinañ wax yeneen élection yi moo ko organiser mais président Macky Sall bi mu fi toppee Abdoulaye Wade ne ko na mm-hmm. lool et moo <laughs> donc boobu daf koy décrédibiliser deuxièmement mooy Sénat ki ko diriger di Doudou Ndour hmm. ba mu jeexalee mandaam kenn xamul kañ la ñu bàyyi ko ko waaw ku jeexal mandat hmm. lu mu fay defati di fait fekk ñu maintenir ko à la même posture dafay tax man crédibilité seeni décision du ma ci daal dalu sama xel am naa hmm. ci droit troisième élément bi tax mooy waa DGE pour pourquoi ñu war a notifier coalition ñe même ñi ñu éliminer ñëpp. Mm-hmm. mais li tax waa benn bokk yaakaar seen dépassement boobu ñoom ñu jàpp ni lii mën na te waa benn bokk yaakaar ci moom avoué ni ëpp na. dafay tax sama xel dalu ci ñoom. Mm-hmm. quatrième élément bi tax sama xel dalu si ñoom moom mooy li nga xam ni yëpp dafa am tey dafay confirmer que ni volonté bi ñu am. Mm-hmm. du volonté wu fexe ba nit ñi bokk ci élection yi. mais volonté bi ñu am mooy fexe ba éliminer nit ñi ba duñu bokk ci élection alors que ñoom seen rôle dafa waroon nekk d'ailleurs expert électoraux ku ci mel ni Ndiaga Sylla wax na démb ni ñoom sax dañoo dépassé seen i prérogatives mhm. war ñoo wax kii moo recevable ou kii recevable li ñu waroon def rek mooy constater notifier su ko defee ñi ko war a wax du ñoom mais ñoom ñoo commencé déjà présent ni ñii ñoo bokk ak ñii ñu waruñoo bokk man je crois que élément yooyu su ma ko dajalee <laughs> man je pense ni ñi nga xam ne ñoo ci war a taxaw nañ taxaw mais man décision yi dalu